cent millions cent millions CFA Italie joxe na Pastef Ita Pastef Sénégal cent millions CFA macha allah macha allah waa Italie chegu cent millions de CFA te Italie kese kese ñeneen ñi ñëwaguñu cent millions CFA. donc merci merci merci Yaba sans plus tarder dañuy jox